leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz SN TV ñu daal di àddu wax ci dossier Prodac mu mel ni rek bi lépp dossier jeexagul ba léegi bu ñu sukkandikoo ci Birahim Seck gannaaw ba nga xamante ne ñi rek daal di nay bind lettre au peuple Prodac jëm ci fanweer ak juróom benn milliard si suñuy koppar jëm ci Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko gannaaw nag ba nga xamante ne ñi rek nee na loolee ñu bëri waxuñu ko ci bi lépp dossier te bi lépp dossier jamono jile àtte nañu ko ba tegee ko ci eh, suuf te nee na loolee rek ñu bëri ñoo daal di bénéficier maanaam ñu bëri ñoo ko daal di ëmb moom mi nekk di Ibrahim Seck jamono jile lenn rek moo ko daal di jaaxal maanaam Sénégal justice bi ni mu tëddee rek moo ko daal di jaaxal ndaxte rek bi lépp dossier jamono ji jël nañ ko dugal ko ci tiroir te li nga xamante ne nii rek wax na ko mu di fanweer ak juróom benn milliards yooyu si sunuy koppar déggul benn yoon ñu wax ko ci dossier Prodac bile moo tax mu jàpp ne bi lépp dossier jeexagul ba léegi maanaam nee rek Sénégal maanaam du ñu leeral du ñu ko leeral dañuy bàyyi loo xamante ne da si des moom mi leen nekk di Birahim Seck njiitu forum civil moo daal di yëkki yooyee kàddu ci bileb dossier jëm ci dossier Mame Mbaye Niang ak kële di Ousmane Sonko mu di fanweer ak juróom benn milliards yoo xamante ne ñi rek nee na dañu ko daal di bénéficier wu maanaam dafa am ñoo xamante ne ñi rek dañu ko daal di ëmb te loolee dañu ko war a leeral ci bileb dossier waaye déggul benn yoon ñu wax ko ci euh, dossier Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko bilee gannaaw bu juge ba àttee ba daal di daan kële di Ousmane Sonko ñaari weeri kaso yoo xamante ne ñi rek sursis la ak ñaari téeméeri million yoo xamante ne ñi rek war na ko versé euh, kële di Mame Mbaye Niang Birahim Seck njiitu Forum Civil moo daal di yëkki yooyee kaddu ci lettre o peuple Prodac boo xamante ne ñi rek daal di na koy jëmale ci fanweer ak juróom benn milliard euh, si sunuy koppar